léegi nag ñu bëggoon waxtaan ci mbirum màggal gi màggal gi li tax maam Borom Touba sàkkane woon ko màggal gi de moom yàllaa te ne ci man la ko jëkk jaatal man la ko jëkk wax ba ko ba ma ko waxee itam dafa am sama mag gàtt bu ko jox moom laa ko jox fekk na nag muy ci weer bi ci fan yi yéen toll boobu màggal gi daal war naa des ñeenti fan wala juróom bis bi nga xam ne ci la ci la ci la ko fas yéene def ba mu ko defee fekk gàtt ba di aw bëy ma di wax ko ko ne ko moom de yéene na fi ndaw jox ko gàtt mu ne addiya la mu ne ma mënu ko nag waaye aw bëy aw bëy la mënoo waaw ndax mën nga ma koo weytukul am xar am xaaf am xaaf sax la wax mën na ko waaw sallaaw dinaa ko mën mën ma demal toppatoo ko ndaw li ko indi woon ma dal ko yóbbal fii ci jett yi ci séeréer yi ni ko boo demee fexeel ba weytukul ma ko mu dem fekk séeréer bi nekk ci toolam mu ne ko man de damaa yoroon ah, béy bi bëggoon ku ma ko wecc ba man ci am am xaaf téere bi ni ko seet gàtt bi seet béy bi ni ko ah xam nga kii de së sëriñ bi moo moo ko moo koy moo koy weccikul mu ne ko waaw mu ne ko ah mu de dafa seetul bëtt bi waaye bu seetul bëtt bi mu ne ko ah mu de lii la bëgg mu dal koy wax na ko baax na danga koy joxoon xaar moo xam ne da ko yeew fee ci ci ci mboyeef gi mm. ni ko seet kee de boo ko tee boo bu la yóbboo mën nga ko yóbbu mm. mu daal koy fab lépp indi ko indi ko ma daal di ànd ak moom ndaw la dem ci seen bi ni ko la nga ma doon weccikuloo de wecciku naa ko mm. am xaar mu ne bon nag téye ko dafa am lu ma la ci bëgg digal ba ma jekkee bisu ne bisub talaata la àllarba alxames ajjuma gaaw ba di laa di bisub bisub màggalu mu ne ma mu woo ma ne ma gàtt boobee bisub tey bii day gis boo xam ni bii yàlla defal na ma ci loo xam ni lu ma am ci ngeneel ak lu baax ci la tàmbali ko tuddu dem mukk ca ngeen itam te ngeen li ngeen am ci bis bi ngeen ko amee bis bi mooy seen bis yi nga xam ne jiituñu ko yëpp moom ay ay ay ay ay koree ki tabaski ki tamxarit te yooyu yëpp bis la boo xam ne fële na ko fekk waaye bii bis bi moom mooy sunu bis mooy mooy sama bis seen bis kon nag ma bëgg ma loolu mu ma ci defal ma sante ko sant sante ko ko gàtt bopp bi nag na nga dem rendi ko boo ko rendee te waxtu woo ko rendi mu mel ni taxaw sama taxaw di ko rendi ma def ko noonu moo ko daan def am am am ñu ko jox loo ñu ma ñooñu na ko def ñaari xaaj bii nga jox ko diw bii nga jox ko diw danaa leen jox luñ ko boole luñ ko boole ba defar ko ba mbooloo man cee déet ñu hmm. màggal gi daal noonu la demee noonu la ko waxee ñu la demee